mbokk téléspectateurs yi ñu seetaan nuyu nañ leen fu ngeen mënti nekk ci adduna di leen ziar di leen dalal jaam ci suñu plateau bi spécial bi nga xam ne moom mooy jeunesse ak religion ñu ngi leen di baalu àq xam ne moom mooy show Ramadan euh, teggoon ndax li nga xamante ni moom mooy korité tamit di baalu àq mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp waaye plateau bi du ma ci wéet dama ci ki nga xam ne mooy oustaz Assane Seck oustaz maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay Adja Betty di di ndokkeel mbokku téléspectateurs yi TFM religion yëpp si julli gi ñu génn di ko ñaan yàlla moom subhanahu wa taala mu nangul ñu ko nangul ko mboolem jullit fa tabarakallah yaa oustaz tey ñu ñëwaat ci beneen numéro ak tey ñu andi thème bu am solo comportement avant et après le mois de Ramadan. Euh, bétti xam nga weeru koor bi nga xam ne moom la ñu génn bi ko yàlla suñu borom subhaanahu wa taala di farataal si ñun dafa waxoon ne laallakum tattaquun maanaam li mu bëgg ngeen génnewaale ko ci biir weeru koor gi moom mooy ragal yàlla. kon ragal yàlla boobu nag moom la ñun ñëpp war a sàlloo war nekk loo xam ne moom la ñu war a jikkoo itam. Mm. fexe ba koor gi nga xamante ni génn nañ ci ak alhamdulilahi rabbil alamin ñu nekkee noonu ba kooru déwén incha allahu subhanahu wa taala lépp loo xamante lu ñu doon bañ la di ko wax wala di ko def wala di ko déglu wala di fa dem wala di ko xool si biir weeru koor bi yooyu yëpp dafa ne wala sax ba ci colin gi yooyu yëpp ay comportement la yoo xamante ni ni ñu ko bàyyee woon ci biir weeru koor bi noonu itam la ñu ko war a bàyyee bi nga xam ne moom la moom la koor gi jeexee te loolu dafa nekk loo xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala namm si ñun ba taxoon mu ñënu laallakum tattaqun maanaam bu ngeen defee ragal bu ngeen wooree weeru koor gi ni mu ni ma ko santaanee rek Euh, bu ngeen si génnee di ngeen am ragal yàlla gu mat sëkk kon ragal yàlla googu noonu moom la yàlla subhaanahu wa taala nam si ñun ñun itam dañu war a fexe ba ragal yàlla googu ñu sàlloo ko ci biir ragal yàlla boobu yaa oustaz def nañ ci élément bu am solo dem nañ ci mbedd ba waxtaan ak suñu mbokk ndaw ñi laaj teen seen xalaat ci comportement yi nga xamante ni ñu ngi koy am avant et après le mois de ramadan avec la complicité de la régie dañuy xooli élément bi ñëwaat ci plateau bi faram fàcce ko yaa oustaz à tout de bi naka la Gora tey ñu ñëw ci suñu rubrique bi nga xam ne moom mooy parole o jeunes ñu leen di laaj nag comportement yi nga xamante ni moom ngeen am gis neen koor gi sellal be et tout ça lu ndax lu war lu ngeen war a continuer la. ah mun nañ ko continuer mais tamit dañuy diine ak jamono de waaw jàpp dinañ julli mais su jàllee tamit ñu nekk ci leneen yeggali suñ julli rek bañ a woor. waaw yeggali seen julli ak yeneen. waaw dinañ yeggali yeneen yi nekkaat ci leneen kay yeneen mission. waaw ay xale lañ nag. loolu dinañ si bu baax bu dul koor sax dañuy jaamu yàlla waaw si ñu ngi siy bàyyi xel bu baax a baax waaw nga rek diine bi moom du koor kese waaw bu dul koor sax dañ koy def waaw. waaw boof da dégg ñu naan euh, avant koor gi dañuy dem tëj saison bi affaire yooyu mais loolu soo gisee du lu baax parce que lan mooy tëj saison ibbi saison saison bi yëpp. wala année bi yëpp la ñuy wax ni nga war comportement bi nga war a am war a mooy jaamu yàlla puis jeex na ko jaam ban conseil nga leen di jox si ah, koor gi boof nañ ko continuer ñu ko rek mooy gën quoi. koor moom euh, liñ ci wax rek nekk weer boo xam ne weeru sellal la weeru partage la weer boo xam ne lépp loo xam ne lépp lu baax la rek dañ ko war a def waaw ah, te loolu man suma sañoon du yem si weeru koor kese mën nañ koo yaatal si yeneen euh, weer yëpp. parce que ay jullit lañ Sénégal réew jullit la parce que boo nee quatre-vingt-quinze pour cent des des des balaa la population ay musulman lañ kon li nga xam doon nañ ko def ci weer bi lu si mel ni joxe café yi lu si mel ni jël ay kër ay ay affaire daf si kër miskin di leen ko jox pour loolu war nañ ko continuer loolu mooy jaamu yàlla bu njëkk parce que julli kase du jaamu yàlla parce que mën ngay julli teew di def lu bon te am na geste yoo xam boo koy def mën na la di génne si lu bon kon su ma sañoon lépp loo xam ci lu baax loo xam ni ko doon ci weeru koor buñ ko continuer ci euh, ci yeneen weer yi ragal naa ne Sénégal dina jëm kanam. jaamu yàlla day continuer pour toujours parce que ñun fii dañ ñu fi indi pour ñuy jaamu indi wuñ fi pour ñuy fo foo amul njëriñ sa ndaw da nga koy jël dénk ko yàlla soo màggetee mu téel sa màgget. ay Aïcha de retour sur le plateau gis ngeen li nga xamante ni jeunes yi wax nañ ko ci li nga xam ne mooy suñu temu tem bi yaaw saas mm-hmm. ñuy wax ba léegi ci comportement yi nga xamante ne ñun ndaw ñi war nañ ko am avant et après le mois de ramadan mm-hmm. dama ciy jund leen rek euh, durant le mois de ramadan boo seetee suñu colin dafay changer on porte d'autres habits boo seete tamit ci suñu ay kàddu ak suñu ay milieu de fréquentation lépp dafay soppeeku koo ci wax mu ne la mois de ramadan bi moom moo tax te bu mois de ramadan bi passé ñu delluwaat ci yeneen activité nga nekk mu nekk loo xamante ni oustaz ndax weeru koor nekkul loo xamante ni léegi jeunes yi dañ ko dañ koy caaxaane daal bu weeru koor ñëwee ñu ñun doon yeneen nit bu weeru koor passé nag ñu génn ci beneen facette ba nga xamante ne ñun suñu bopp dañuy toog naan ese ñun la waaw xam nga boo déggee euh, élément bi ndaw ñi nga xam ne ñoom nga jot a li ñu si wax. Mm-hmm. mooy day dëggal li Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne weeru koor bu ñëwee dañuy tëj bunti safara yëpp ubbi bunti aljana yëpp waaye itam seytaane yi dañ leen di jéng. maanaam seytaane yi nga xam ne dañuy euh, jax-jaxal doomu aadama bi à chaque fois si jaamu yàllaam ak yeneen dañ leen di jéngi kon ñoom xam nañ li nga xam ne moom moo leen si war xam nañ itam comportement yi nga xam ne moom lañ yore war a yore bu koor gi jeexee waaye bu fekkente ne koor gi danga koy def rek parce que weeru koor la ngay sol loo xam ne loolu la lislaam bëgg di dem foo xam ne foofu la lislaam bëgg di wax lislaam bëgg di xool maanaam li lislaam digal nga nekk si bu jeexee nga delluwaat ci démb loolu day mel ni yow sa koor danga ko doon foowee te li may faral di wax ñàkk euh, euh, dignité mënul weesu nga yor sa ndabu soow def si sa yu baax sa yu sedd ba mu baax nga war ko mën a naan jël toxu deret def si donc noonu la comportement yenn yi di yàqe li nga xam ne moo di yool yi wala moo koy wàññi loolu itam dafa war nekk ay mbir yoo xam ne dañ ko war a moytandiku surtout ndaw ñi tey jii boo xoolee ni ñuy préparer après koor rek da nga yéemu dix jours wala une semaine avant avant Korité ñu commencé voilà commencé di indi ay comportement yoo xamante ñee ngi di wër ay cheveux naturels mm-hmm. ñee ngi topp dëkk bi di wër ay yére yoo xamante ni yuy xappataku lay doon mm-hmm. ñee ngi topp dëkk bi di xool noo xamante moom la ñuy defaraate seen teint ñi commencé di pose ay ongles yooyu yëpp day nekk ay mbir yoo xamante ni àndul ak koor àndul ak jaamu yàlla gu sell ndax ku ne xam na ne l'islam dafa am comportement boo xamante moom la wax ne xale yu jigéen ñi moom lañ war di ko yore mm-hmm. waaye itam itam xale góor yi léegi jeunesse bi boo xoolee ñi si ëpp dañuy dem di wuti ay pain barke démb rek maa ngi koy wax sama benn xarit ma génn si guddi gi di dox gis xale yi ñee ngi sol ay pain kenn xamul lu ñuy nuru mel ni ay méego cigarette ma ne ko lii xam nga c'est trop nit da sol lu yiiw sol lu jot sol lu ample loo xamante ni ku la gis respecté la mais di dox sa loxo ngi sa digg gannaaw parce que sa tuba yi nga wadd nga yëkkati di for rek mel ni ku ku ku ku ñu yabal sa duus ba yooyu yëpp day ay comportement yoo xamante ni jar a bàyyi xel la surtout ñu xam ne dañ nekkoon si weer woo xam ne weeru jaamu yàlla la ni ma koy waxee stage lañ doon def stage bi nag bu jeexee da nga war a fexe bu ñu la waxee kaay nga pratique la nga doon jàng stage ba sa stage ba. nga pratiquer embauchement sax moo ci war a toll booy seet. mais su fekkente ne yow koor gi jeex na rek yow pare nga ak eh, pratique yi nga xamante moom mooy pratique yu rafet yi yu mm. baax day mel ni da nga doon kokkali suñu borom subhaanahu dëgg la yaa li may faral di wax rek yàlla moom moom euh, magum lëndëm la mm-hmm. ku ko dajul mu daj boppam kon ndaw ñi nañ bàyyi wat xel si seen comportement bu baax a baax si wàllu woowu mag mu lëndëm la ku ko dajul rek mu daj la oustaz ci biir activité ba léegi jàngi xasida jàng li nga xamante ne moom mooy alxuraanu karim mm-hmm. ñëw ci jàkka yi eh, di li nga xam ne moom mooy pratique waxtu julli duñu ko tardé. Mhm. deux heures booy seet euh, ba naafi la ñu ngi ñëw ci biir jàkk di ju julli. Mhm. une fois que le mois de Ramadan passe. loolu jeex na mun naa wax mhm. daanaka boo seetee yenn kër yi am na ñoo xamante ne ñu ngi dem di julli àjjuma yenn jeunes yi mais bariwul comme mois de ramadan bi ñu ci nekkee woon après le après le ramadan c'est autre chose yaa oustaz loolu tamit bëgg naa nga leeralal ma ci tuuti ah xam nga bu fekkente ne euh, julli day jot nga nekk si biir weeru ko boo xëddee ba pare yaa ngi jàkk ja bu dee ñi di war toll si jàng la wala ñi toll si liggéey bi suñu liggéey yi la jàngiwuñu bu jullee tisbaar ñu ngi toog si jàkk ji di déglu firi alquran mhm. ba tàkkusaan ñu julli tàkkusaan bu ñu paree ñi yor seen kurus di wird ñi yor seen kaamil di jàng alquran ñi di def seen ay salawaatu ala nabi yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xamante ni jàmm bu si nekk mhm. yow boo koy def di nga ne sa ruux maanaam sa am am mu ngi set mu ngi sell mhm. mu ngi yiw te yaa ngi sentir benn benn benn fraîcheur boo xamante ni en dehors de weeru koor mhm. mënoo ko sentir parce que instant boobu yaa ngi purifier sa am muy sa ruux mais bu fekkente ne mu nekk benn contact direct comme ni nga ko waxee diggante jàmm bi wala ruuxu jàmm bi ak mhm. euh, suñu borom subhanahu wa taala mhm. mais bu fekkente ne yow yooyu yëpp dafa nekkoon loo xamante ni da nga ko doon dafa rek mu nekk benn genre bluff maanaam pour jéem a sëlëm suñu borom subhanahu wa taala ñu jéggal ma si kàddu gi wala nit ñi sa bopp ngay sëlëm ni may faral di ko waxee mag bu jaaxaanee du tuur ndox Mm-hmm. boppam rek lay tooyal kon comportement yooyu mooy wone na mooy yu baax yi mm-hmm. mooy yu yiw yi moom mooy yu selli yi euh, moom la ñu la yaaw saas parce que ci foofu borom bi subhaanahu wa taala mu ngi wax yaa ayyuhal lazina aamanu kutiba alayhim mm-hmm. maanaam julli wàccul kenn wàccul benn doomu aadama déedéet julli mënul wàcc benn doomu aadama ndax inna salaata kaanat alal mu'minina kitaaban mawquuta euh, yàlla dana julli dañ ko utal sax bañ ko ba utal ko ay heure yu fixe mhm. mu nekk farata si ñi nga xam ne dañ gëm yàlla gëm sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour wax la rek beneen bi mooy que ne sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na si ñaar yi mu mujjee digle laata ruuxam di dog mhm. ñaar yi muy julli ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di njaboot gi mhm. asalaatu wa malakat aymaanukum boo demee si xilaasu zahab Seydi El Hadji Malick radiallahu taala anhu mu ngi ko fay wax inna salata wa mamlukan la axiru maa awsa bihi Mustafa fi xaalatil alami nee na jamono boobu mu ngi sukuraat muy metti si moom lool mu naan as salaatu wa ma malakat aymaanukum julli julli julli ak yërëm ñi nga xam ne ñoom ngeen jaboote kon loolu day wane importance bi nga xamante ni julli am na ko mais bu fekkente ne weeru koor bi rek nga jàpp ne moom mooy weeru koor mooy weeru jaamu yàlla si lañ war a demee si jàkka yi si lañ war a jànge alquran mm-hmm. si lañ war a jullee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. nga génn si koor gi ne da xaar déwén yow ku la wax ne di nga fekkee déwén yàlla rek la wóor am na ñoo xam ne fekkee nañ kooru ren ak déwén duñ ko fekkee mhm, ñeneen noonu ñeneen noonu am na ñu ko fekkee woon daaw ren fekke wuñ ko noonu la àdduna tëdd wa tilkay tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas kon ndaw ñi nañu conscient que ne du mag ñi rek ñooy génn àdduna mhm. du mag ñi rek la yàlla di rey waaye itam du mag ñi rek la yàlla di teg nattu ak feebar mhm. tey jii boo demee ci hôpitaux yi da nga fay gis ay borom yi karaw yu ñuul mhm. ñu tëdd fa yàlla teg leen feebar te du seen ñàkk pexe wala seen ñàkk gëm yàlla wala seen ñàkk pas-pas mais yàlla la neex mu teg leen loolu kon dafa am xéewal yoo xam ne bu la ko yàlla teg teg joxee xañ ko ñeneen loolu rek war na mën a tax comportement bi ngay am sa diggante ak sa borom. mu nekk loo xamante ni dëgg la tey damay dégg jaamu yàlla jaamu yàlla yàlla ndaw la ko gën a soxlaa. gis nga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, dafa dem benn bés. Mhm. muy tooñ benn màgget mu ay man nañ nàmpal na ko mu koy tooñ naa ko yow doo dem àjjana. maire bi du jooy mu ne ko man mii ak ni ma la gëmee mu ne ko waaw mais doo dem àjjana. Mhm. mu ne ko lu tax mu ne ko àjjana màgget du fa dem. Mhm. ndaw. mooy dem àjjana donc pour wax la ndigum àjjana sax ay ndaw ñoo fay ne bu ñu demee ku su nekk dañ lay retaillé waatal sa âge nga nekk ndaw nekk mm-hmm. adolescent wala adolescente kon marché fii nga xam ne moo di si àdduna mm-hmm. mais bu xam nga mooy li ma fekkee yow wóor la ndax di nga dund soixante ans wala soixante dix ans wala quatre vingt rafet njort rek di dem bés bu ne kuñ suul rek nga mm-hmm. defe ne keneen si toppata du yow te amaana yow yaa si topp kon bi nga nekkee ndaw si ngay wa taala jox ko sa lépp da nga jël ndaw ji jox ko àddina ak seytaane ak bëggi-bëggi àddina ah boo ba boo boo màggee rek la ak àdduna te ku yàlla bàyyi ak àdduna moom àdduna tër la ayca mu ngi noonu te ku yàlla bàyyeek àdduna àdduna tër la ba tax na waajur yi ñoom itam am nañ pàcc bu mag ci biir jeunesse ak religion tiimal neen leen suñu micro waxtaan nañu ak moom dañu koy xoolee di kaat ak yéen ci plateau bi loolu la ñu bëgg daal vraiment xale yi nañu gis ñu julli euh, weeru koor yi jotoon ñu yëpp dugg euh, julli dañoo bëgg ñu continuer loolu waaw loolu moo gën a baax ci ci ci ci ci jullit ko wante nag euh, boo jë weeru koor bi jeexee ñuy fetu leneen loolu baaxul voilà ñu sakk xale yi pour ñu ñaax bu baax a baax ñu jàpp islam bi. xam nga jeunesse ak mooy li ñuy wax gis nga. xale boo xam ni teel nga jaamu yàlla topp yàlla ragal yàlla gëm yàlla bis boo magere yàlla teel la sa mag waaye xale boo xam da nga fooyee sa ndaw defaloo yàlla dara préparé loo yàlla dara bis boo magere yàlla seetaan la nga yàlla waan nit ñi te kenn du la yërëm ndax yàlla mooy def ci xolu nit du la yërëm dama dégg benn adage nag il faut prendre le temps de car c'est le secret la jeunesse mais loolu wax ju yàqu la gis nga nit foo ak def la ko dul noonu ci bopp ak ci xel am na ñoo xam ne rus nañu wéet def lu ñaaw rus nañu wéet lu ko def lu ñaaw ndax dañu xam bopp xam sa bopp na taxul nga xam ndax sama waajur nilut ak sama sama sama samay samay askan déedéet xam sa bopp la ça dépend de la personne dans la vie on on ne fait pas ce que l'on mais on est responsable de ce que l'on est waaw lii daal moo doom may may lancer un appel à tout la jeunesse de la oumma islamique et surtout celle euh, du Sénégal ñu góorgóorluwaat xamaat seen bopp xam ne ci dëkku Alaaji Malick la nekk dëkku Limaamu Laay dëkku Maam Borom Touba xam ne ci askan ak xeet bu baax loon bokk ma may leen benn anecdote foofu gis nga bu fekkoon yàlla dafay def tey bisu pénc mu bunti bunti àjjana yi maa ngi yëgal Sénégal Sénégal dana bokk ci buntu àjjana yi dama xamul nag premier lay nekk wala wala wala dernier mais dana bokk ci buntu àjjana yi ndax gis nga nee na noonu que le Sénégal est la porte de l'Afrique kooku rek cela veut tout dire kon ñu góorgóorlu xam ne bu ñu góorgóor dina bokk ñi nga xam ñooy ànd ak Seydina Muhammad dem àjjana asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala di santaat bu baax ba di julli ci sëñ di di ñaanal sëñ Babacar Si yàlla taas na ci barke ak njabootu Alaaji Maalik yëpp ci barke Cheikh Ahmed Tidiane barke yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen jëf dégg li nga xam ne waajur yi moom la ñu wax ci boobule élément yow saas waajur yi ñoom itam am nañu pàcc bu mag ci biir jeunesse ak religion ba ci biir euh, euh, waxtaan bi ñuy waxtaanee. Mm-hmm. ndax defe naa ni weeru koor. Mm-hmm. yaa ngi yaa ngi jiite say njaboot ñuy julli. Mm-hmm. lan moo tax après weeru koor. yow booy julli doo leen doo leen woo ñu ñëw julli. waaw mais mooy li ma la wax sànq yooyu yëpp c' une question de comportement. mais mm-hmm. aussi de responsabilité. dëgg la euh, kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon. dëgg la ne yéen ñëpp ay sàmm ngeen te ëllëg kenn ku nekk si yéen. dinañ leen laaj jur ga nga yoroon naka nga leen sàmmee ndax ruuj nañ toolu jàmbur waaw wala déet. Mm-hmm. ndax daan lekk ndax daan nañ naan léegi euh, ñu baal ma du ñëpp loo gis am na exception. du ñëpp ñëpp léegi ñii ëpp yaratuñ dañuy xont maanaam dañuy fexe nga jox la nga lekk jox la nga naan te lekk geex naan gi sax day ko dégg mhm. bu ñu tëddee di sieste wala di nelaw ñu ne la ee eh, si biti nee naan ne xale boo ko daaxee si kër ñaari béréb yi rek la am mbedd mi mbaa kër jàmbur amul feneen mhm. mbedd mi wala kër jàmbur te mbedd moom ku si dem mooy ñàkk nga kilifa te ku ñàkk kilifa jinne mooy doon sa kilifa te kilifa yi jinne yàlla nañu si yàlla musal kenn xamul fu muy jëmee njabootam mhm. yàlla rek a xam boo demee kër jàmbur itam li ñuy wax rek ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom mu toog soit day dugg kër jàmbur ñu jox ko yor boo xamante ni neexu la wala ñu génne ko dàq ko toroxal ko mhm. te ku toroxal sa doom toroxal na la donc parents yi li ñuy def ni rôle alerte bi ñu amee dafa nekk rôle boo xamante ne bu am solo la mhm. di yee seen doom yi mais da am foo téye mu essentiel trop muy parents yi koor gi dañuy yeete. Mhm. nit ñi di julli xëdd ñu topp bunt yëpp yee ñëpp jóg leen xëdd jóg leen xëdd noonu la ñu war a defee yitte itam di yee njaboot gi ñuy jóg fajar mhm. di julli ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne rakaat al fajri xayrun min ad-dunya wa ma fiha mhm. ñaari rakki fajar moo gën àdduna ak li nekk si biir àdduna yëpp kon parent yi ni ñuy saware seen njaboot parce que ñeewante bi ñuy am si njaboot gi mooy bëgguñu seen doom woor te xëddul mhm. ndax xam nañ ne xiif bi day gën a metti donc ñeewante boobu la ñuy am ñëw yee leen ñu xëdd ba suur ñu defar leen yu baax ñeewante bu toll wala bu ko ëpp la ñu war a am ngir fegal seen njaboot safara moom la mhm. yàlla waxoon ne yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran mhm. yéen ñi gëm fegal leen seen bopp ak seen njaboot safara fegal sa njaboot safara nag mooy ngay fexe muy julli waxtu di dem jàkk nga koy yee parce que yooyu yëpp ay responsabilités yoo xam ne say loos la tegu sa ngàdd bu fekkente ne yooyu yëpp ne croiser les di ko seetaan gëmal na bés dina ñëw suñu borom subhanahu wa a dana la taaj taaj sa njaboot bu leen laajee ñu tontu loo xamante ni naka su dul noonu la kon responsabilité bi yëpp day delluwaat si parent bi te bu boobaa balaa nga siy génn di nga wax loo xamante ni lu set la lu mel ni mhm. bànjula xi sondee la comme ni ñu koy waxee mhm. kon parents yi ñu gën góor góorgóorlu suñu njaboot yi eh, ni ko olof di waxee nag ñu xale moo gën rangañu mag te ku bañ sa doom jooy ëllëg bu ëllëgee sa doom dina la jooyloo yow mi nga xam ne mu ngi ay ca mu ngi noonu ku bañ sa doom jooy ëllëg euh, na la leen ni bu ëllëgee dina la jooyloo yow itam kon parents yi alerte mu ngi noonu gën leen a sàmm seen njaboot gën leen a yiir gën leen a tette yar leen teg leen ci yoon bu baax euh, ba tax na euh, yaaw saas ci biir loolu dalal nañ fi benn gan tamit boo xamante ni dañ ko jël invité du jour muy ki nga xam ne moom mooy Serigne Omar Fall ku ne xam na ko moom itam c'est un éducateur di mu xaddamu Serigne Babacar Sy avec la complicité de la régie dañuy dem xooli invité du jour bi ñëwaat ak yéen ci plateau bi à tout de suite. man xam nga chaque jour sama discours dafa nekk benn discours la fois. Euh, bu ma bëggee dellu si nag ci euh, question bi nga xam ne moom nga posé dafa nekk complexe bu question bu complexe boo xam ne à la fois dafay mériter réponse mu nekk ci benn indi solution ci benn problème bu nu posé mais à la fois tam dafay nekk benn équation boo xam ne tam aussi à mille euh, vraiment questionnement li may di tontu foofu nag mooy bu ma déggee yenn journalistes yi wala quelqu'un d'autre au niveau des daayira ou des mouvements ñuy ñuy ñuy wax nit ñi naan dan nga xam ci jeunesse ak weeru koor bi seen comportement mais écoutez euh, éducation c'est comme des verres de lunettes c'est comme des verres de myope sa permet de mieux voir les choses en face nit ki bu amee yar ñu teg ko ci diine mu tegu ci yoon tegu ci temps am une éducation religieuse ak une conviction spirituelle kooku aajul muy xaar weeru koor pour normal non non non non euh, bu ñu jël weeru koor bëgg ko def rek benn sacerdoce mu nekk benn lam euh, lambo bëgg dagg suñu xol ñun ñëpp dafay metti nit ki da ngay jub bu dul weeru koor da ngay sellal bu dul weeru koor da nga war wax dëgg bu dul weeru koor da nga war jubal bu dul weeru koor léegi nag weeru koor nag dafa am particularité nag effectivement buñ ci duggsee gis nga li nga xam ni weeru koor moom la la sant bu dul weeru koor moom la la sant différence bi lan la ak exception bi mooy que bu bu huit heures suba jotee mën nga lekk. naan midi nga añ njogonal reer mais bu du weer ko loolu tere en degré moyenne nga jotee ak sa soxna mais gis nga loolu nit ki daf ci wat santaat yàlla xam ni bu fekkoon ay waajur yor nañ ko ci contexte bu baax a baax ci environnement bu sain kooku benn waajur du du jaaxle mais malheureusement da ngay yar si biir kër mbedd mi yàq mais loolu indi loolu nag dafa am ay soubassement yoo xam ni euh, da nga ci war jiital sa doom mooy wax ko dëgg da ngay dem ci benn kër dégg benn xale. di wax la du noonu am ko ko tàpp ni ko eh xale du wax la ko du noonu maanaam xale du fen mais du xale nit moo dul fen loolu nga koy wax ni ko nit du fen ngeen baal ma ci expression ndax dañuy waxtaan rek ndax lu dul dëgg euh, euh, du du xale moo nit ci boppam moo war wax lu dul dëgg xale noonu lañ koy yaree mais comme le di dit l'adage gis nga que de ressemblance avec nos enfants nous n'aimons pas la vérité mais à cause de son goût amer pour notre remède nous oublions son goût agréable pour notre guérison nous préférons l'futilité et nous enrichissons et sans oublier leur poison loolu boo koy firi mooy gis nga ñun dañuy yar suñu doom bi pare bëggul nekk ci dëgg ndax dañuy yar xale yi ci ci ci ci dëgg ba pare ñun def dakastu noonu bu ko defee xale bu màggee gis loolu tam xale magu caaxaankat lay nekk tu sais on ne peut pas édifier une société juste stable or que les bases sont fausses gis nga xale ba mu juddoo la nit ñi defee koy commencé yar mais ba mu nekkee ci biiru yaayam lañ koy commencé yar dinaa leen jox benn anecdote comportement xale yi ci weeru koor ak weeru koor xëy na sax da ngeen profité ci occasion Ramadan bi euh, tu sais gis nga jigéen bu ëmb maa ngi koy may Sénégalais ñu bàyyi ci xel bu ëmbee doom ci biiram mu dugg ci salle de bain sangu ba set dugg génn ci néegam moom kenn kenn mu tëj ko def yaramu neen commencé diw mais day am ay répercussions fatales xale ba bu juddoo ndax la fait ko mu def nu commencé diw yaram moo xam lu muy def xale bi mi ngi koy gis xale bu màggee nag day yaakaar moom fu mu toll dafa war a sumeeku ci kanamu góor xam nga déjà kooku affaire bu xaw a métti la. na ci nit jigéen bu ñu ëmbee nañuy ormal seen ëmb bu ñu duggee seen toilette ba sangu ba génn dugaat seen biir nekk nanu jëlaat euh, taraxlaayu diw def lu ñu bëgg def bu dul loolu day indi répercussion ci xale boobu. boo gisee nag li nga wax léegi ci weeru koor bi li ci metti mooy semaine da ngay rendre compte que léegi les mosquées sont vides <laughs> léegi cafétéria yi tijji nañu plein de monde tout ça mais amul kon benn jeexital bu mu def ci weeru koor bi d'autant plus que sunu borom mënoon tànn pour 15 jours pour pour pour ñu mais il a choisi 30 jours mais 30 jours nit ku bëgg defar addunaam bu ci bëggee baax mën na ci baax mais bu jógee tàmbali ci bon tam mën na ci bon bon li ci métti nag Sénégal aux yeux de tout le monde ba inquiété leen ba ngeen ñëw auprès des des des guides moo leen jaaxal ñun ñi da ngay taxaw ci daayira waxtaan ak xale yi boo bu vingt heures boo dee ñëw ba doon xam ñu sollu kenn xamul du mel ni ñu nga doon waar léegi loolu nag lu lu indi lu indi loolu tam mooy mooy mooy li ma waxoon léegi rek ci ngëm-ngëm la ak pas-pas parce que xale boo xam ni dafa ñëw juddu pap mag yaayam xëy di wute lu nu lekk lu naan ba talu nu ko yar bàyyi kook min naan bi ci kër gi wala bon bi gi wala ustaas bi ci eh, koñ ba kooku munu am éducation bi nga xam moom la ay waajuram nam day day day métti rek day métti moo tax kon nañu bàyyi xel ci yaru xale yi bàyyi xel ñu tam suñu comportement ñun waajur vis-à-vis de nos parce que li ci li ci am solo yar baax na waaye ki nga yar tam nga xam ko li ñu koy wax lan la mi ngi mel ne benn xale boo xam ni dafa nekk ci sa kanam yow nga nga tawat weeru koor xale bi gis ne yow wooroo mi gis yeneen moom seen ay wajur woor moom day yaakaar ni comme koy woor moom warul woor te mu xamul yow tu es malade te yaa ko woon leer ni ko man dama tawat moo tax wooruma kooku tam bu màggee naan sama wajur daan woor man du woor kon loolu nga xam ne moom la cultivé tam aussi da nga ko da nga ko dimbali dimbali parce que l'éducation il faut le dire ah métti na trop mook instruction du benn mais l'éducation noonu ngay jëf da ngay jël benn ko def ci moom tey suba nga defaat ci moom rek bu bu bu bu demee ba dajaloo dana ko jural loo xam ne mën na ko may lu mucc ayib bon weeru koor na comme ni wax lu tax yàlla jël 30 jours yi daf ci bëgg defar doomu aadama sargal ko ci sagal ko ci teral ko ci mais gis nga ni ñun nag léegi c'est le contraire li la ci jaaxal mooy nit ñi dañuy jóge ci lu baax li nekkoon di mamm dem ci li nga xam lakas dul noonu la alors jóge ci li xam lakas dul noonu la mamm dem ci lu baax gis gis gis nga gis nga transition boobu la nit ñi mënul comprendre lu indi loolu nag défaut de communication tam daf koy def parce que les parents aussi am nañ ci une grande part de responsabilité parce que y a certains sujets yoo xam dañ koy jugé tabou ah ça c'est pas normal sa doom da koy xamal sa nawle la nga leeral ko li nga xam ne mooy li baax ak li bon pour mu tenir en considération certaines valeurs yi nga xam ne moom dafa xam xam ni ndey ju baax la am baay bu baax la am famille bu baax la am askan bu baax la am xeet baax la am mais malheureusement ñun Sénégal da ngay gis kenn koo xam ne dafay nekk benn doomu sëriñ bu mag a mag a mag nga laaj ko nootul mën la mën la doomu diw diw mooy sama maam diw mooy sama mamaat diw mooy sama ndijaay mais pour man loolu loolu du du du du du du du demoo def jël euh, euh, comment dirais-je nit ki boo ko bëggee bu di bëggee def biographie def na waru ko defee noonu bu la ñëwee ne la yow yaay kan da ngay war joxe sa tur ak sa sant jarul tudd sax tur. nee na man dama jub pour defal jub ànd ak jub nekk ak jub bàyyi lu bon bàyyi yàlla teraan topp ay santaane ma may kooku boo waxee loolu pare nag doo koy wax nag fa sa askan ñan la bu ko defee léegi bu fekkee da bokk nag ci askan wi dañ naan kii nii la man demee kenn wax ko nu mu demee nii il faut ñu bàyyi xel ci aspect boobu c'est très important. Aïcha mu ngi noonu dégg ngeen ko yéen ñëpp ki nga xam ne moom mooy Serigne Omar Fall muxaddamu Serigne Babacar Sy ndeysaan Serigne Omar Fall yaa oustaz mun naa wax ni nit ku baax la. parce que bëri na tey ci ay quartier yoo xamante ni mu ngi fa dëkk di fa sanc ay daayra comme man man quartier bi ma dëkk cité suprime di fa sanc ay daayra di fa sanc ay waxtaan di woo xale yi di leen teg ci yoon di waxtaan ak ñoom di leen wax ni lii mooy àdduna lii moom mooy diine lii ak lii ak lii euh, defe naa ni quartier bu nekk bu amoon euh, kenn ku mel ni sëñ Omar Fall dina ji dina gën a développé yaaw saas waaw xam nga nit li leen war rek moom la si Cheikh Omar Fall moom ñu koy ziar si la nekk. Mhm. ñeneen ñu bëri itam si lañ nekk mooy fexe ndaw ñi ñu tegu ci li nga xam ne moo di yoonu njub. Mhm. di leen organiser lu mel ni ay daayira ñu jàng alquran. di jàng mhm. xadis di jàng ay xasaay di jàng waxu mag ñi. ngir mën a tegu si siraatal mustaqim. ndax dañ wax ne boo bëggee xam sa avenir u réew. war na sa ndaw ñu xool sa ndawu réew naka la mel. ndax ndaw ñi ñooy nekk ji ay mag ëllëg. kon bu ñu fekkee si ay gox ñu mel ni moom ñu leen di tàggat di leen teg si siraatal mustaqim hmm. lu day nekk loo xamante ni lu ñuy rafetlu mais di leen ñaanal yàlla suñu borom subhaanahu wa taala mu jàppale leen si bu baax a baax hmm. comme ni ñu koy waxee rek jàmbaar nekku fi ku yàlla subhaanahu wa taala jàppale rek moom moo fi nekk waaye itam loolu dafa war a nekk loo xamante ni jàngat la si ndaw ñi hmm. mooy que ne ñëw sos daayira bi si kon bi di leen jànga ñoom dañu war a man a fexe ba mel ni moom wala sax ñu romb ko mais doo ñëw ne rek damay jàng suma wàccee nekk sama kër wala dem dafa jël leneen déedéet ki lay jàngal da ngay fexe nga mel ni moom mm-hmm. wala sax nga fexe ba raw ka parce que di gëstu mm-hmm. loolu dafa nekk isam itam loo xamante ni lu am am solo la mm-hmm. mais itam ñu def li nga xam ne moo di diine seen yitte parce que diine ji ndaw ña loolu la Seydina Limaamu suñu maam daan wax mu ne bi boo xëy ñu mun a diine ji ndaw ñi diine ji ndaw ñi diine ji ndaw ñi moo tax boo demee si cheikhul xadim mu ngi la koy wax ne lan laa tasari dunia bil mhm. uxra yaa fata wan baaxat ak nuura bi jaa fa sa yan dem nee na yow jeune bi lay waxal mu ne ko yow bul jël mukk àdduna di ko jëndee àllaaxira mu ne ko lu tax mu ne képp koo xamante ne da jël lëndëm jën jaaye ko leer wala nga jël leer jaaye ko jënde ko lëndëm ah nee na ëllëg di nga ko réccu mhm. te loolu moom mooy lan mu ngi mel ni nga jël àdduna rek bëgg ko jënde àllaaxira hmm, kon àdduna moom mooy lëndëm mhm. àllaaxira moom mooy loo xamante dafa leer la preuve àdduna bi boo ñëwee dara leeru fi tout est incertain mhm. tout amul kenn ku mën a toog ne lii moom lu ma leer la nii lay demee ak nii ak nii mhm. loolu mooy wane kon ñun si lëndëm lañ nekk lépp a incertain àllaaxira rek moom amul laam-laamee lépp ay leer da ngay ñëw ñu tegal la sa écran géant tegal la sa sa sa écran plat placement bu baax ne la xoolal say jëf yu baax nii kon foofu courant du coupé batterie du jeex amul dafa lëndëm amul contre jour amul dara léppay leer kon noonu àllaaxira di leere noonu la lislaam leere noonu la alquran leere mhm. àdduna aussi ni mu lëndëme noonu la mbiri àddina lëndëme mhm. kon ndaw ñi nañu jël àdduna ñu teg ko de côté dëgg la mhm. war nañ liggéey war nañ nekk war nañ naan war nañ def yëfu nitu adduna yi ñuy def mais lépp ñu xam ne bés dina ñëw li yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ne na nga liggéeyal sa àdduna mel ni doo fi jóge waaye itam na ngay liggéeyal sa àllaaxira mel ni bés bu nekk dañ naa laan ëllëg ngay wuyu sa borom kon mhm. ñaar yooyu kon ñaar yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne dafa war a daje mais bu ñu deful benn distinction bi rek ñun ndaw ñi àdduna mën nañu fëkk mhm. yóbbaale ñu te boobaa dañuy perte suñu réew perte suñuy wayjur perte suñuy mbokk perte te loolu musiba la mhm. kon ndaw ñi ñu mel ni Cheikh Omar Fall mii wax dëgg yàlla di tàggat ndaw ñi dañ leen di ñaanal yàlla bu baax di wax ne ñoom li def pour ñoom pour ndaw ñi la donc loolu dama si lancer appel na leen kilifa yi di jàppale bu baax a baax ndax li nga waroon a def ki la kay defal. Mhm. loo ko jàppale rek doyul. te li ñuy def kilifa yi ñoom ñoo ko waroon def maanaam ñi ŋànk réew mi muy état bi. Mhm. kon bu ay nit jógee volontaire def bénévolat di jël xale yi di leen tàggat si dina di leen teg si siraatal mustaqim ba jéem a sori drogue. sori yàmba sori sàngara sori lu bon sori col gu ñaaw mhm. sori wax ju ñaaw yooyu yëpp wax dëgg yàlla kooku si ñuy defar société bi la te mhm. ku lay defaral jàppale si société bi kooku war nga ko taxawu sa kéemte laay kàttan ah, dëgg la ki lay jàppale ci société bi kooku war nga ko taxawal ci sa kéemte laay kàttan defe naa ni message bi jàll na ndaw ñi ñëpp nañ ci bàyyi xel ndax ñu nit ñooy doon avenir u ëllëg yaa oustaz mhm. mu mel ni waxtu bi xaw nañoo xoj waaw xanaa jéem a tàggatoo rek incha allah euh, ni ñuy wax rek xayrul kalaami maa qalla wa dalla gàtt na mais yaakaar naa ne ay jàngat yu bëree bëree bare bëree bëri am na si ñuy ñaan rek yàlla def ñu si ñi nga xamante ni yastamiuuna al qawla fa yattabiuuna ahsana maanaam bu ñu déggee wax dañuy jël la sa gën a rafet rek ñu jël ko daal di ko jëfe ndax ñun ñëpp ay nit lañ ñun ne parfait comme ni ñu koy waxee kenn matul hmm. alkamaalu lillah yàlla suñu borom subhanahu wa taala rek moom moo mat tooguñu fi itam comme donneur de leçon déedéet waaye fàttale suñu bopp sax fa fa dhakkir fa inna dhikra tanfaul muminin la yàlla waxoon sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko del fàttali ndax fàttalikat dana jariñ ñi nga xamante ni ñoom ñoo gëm kon loolu dafa nekk loo xam ne point bu essentiel la bu jara leeral kon ñu ngi ziar mbokku téléspectateur yu TFM religion di la ziar bu baax di ziar Cheikh Omar ñu gan gi ak ñi nga xam ne ñoom lañ interviewé tey ci euh, sujet du jour di ñaan rek suñu borom subhanahu wa taala wàccee si réew mi xéewal wàccee fi jàmm wàccee fi sutura wàccee fi naataanga ak wér goo xamante ni gu mat sëkk di gërëm bu baax ñi jàppoon si liggéey bi Ablaye Bouba ak ki nga xam ne moo di Ibou Diouf ak Omar fàttewuñu ko Maama Cissé ñëpp di leen ziar di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñëwaat dajawaat fi beneen yoon incha allah ci seen émission jeunesse et religion ànd si ak soxna Betty Madior incha allah kon mbokk yi mi ngi noonu ba beneen yoon ci beneen plateau asalaamualeykum wa rahmatullahi taala xam naa fa la ñuy jaare yaaw sa tàggatoo ñun itam jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ñu sponsorisé mm. abima waa kër sëñ Abdou Khadr Mbacke marché Gambie 803 66 34 merci beaucoup à Ijab Mansour pour les accessoires Juma Fall Aidara moom itam jaajëfal nañ ko bu baax merci beaucoup euh, à moom itam sama téyër bi nga xamante ni moom moo ma habillé euh, sa taamu ngeen di ko gis émission bu ma mën ci def moom moom mooy habillé ma koy jaajëfal bu baax merci beaucoup à technique à la réalisation ñoom itam jaajëfal nañ leen Ibou Diouf caméraman moom itam jaajëfal nañ ko Lay Bouba Omar saw réalisation Mao Cissé on se retrouve la semaine prochaine ci beneen numéro euh, ak beneen tam yaw saas incha di leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah ba beneen yoon incha allah